Coriace ñu naan ko Moussa Ndiaphate bëgg naa la. maa ngi lay bëgg bu baax. si lan nga ne. maa ngi nii maa ngi jàmm baax. yaa ngi yaa ngi noos de. si <laughs> noos ba dara. <laughs> mais yaa ngi si jàmm daal. maa ngi sant la tey en tant que tey Fass waa tey Pape Ndoye war a anniversaire war a def euh, open press am tey ngeen ñëw teewal ko naka nga ko gisee en tant que sparring partenaire bokk benn écurie. waaw mais ay naataango lañ ay morom lañ ñoo débuté loo ci làmb nekk écurie Fass donc waaye bés li leen ci mun mooy taxaw ko comme man tam su ma waayee bés am ni ngi taxawee rek di ko ñaan yàlla yàlla may ko ndam lu sedd guy bak si naa ma xooy. naka nga ko gisee état de forme physique am état d'esprit am waaw ah non macha allah macha allah wax dëgg yàlla moom parce que combat bi moom wax sama xel dal la si quoi baax a ki muy bëreel ak euh, par ak moom fi mu jógee euh, défaite bi mu jógee est ce que moom dugg pression par rapport ak adversaire. non ki muy bëreel champion la macha allah ma dafa baaxoo daan ak daanu comprends nga malgré kii défaite la jógee mais tam teewul bàyyiwul benn mu ngi mu ngi lu mu war a ñaan yàlla yàlla dafa ko ndam seddu guy bak si naw jaay leer lu fay des ñu nga ko biyee. Ah, ah loolu nga gis daal. moom loolu moom sax. mais yow si lan nga ne yow tam vraiment sa combat jafe pour mu taxaw lu xew. non am naa combat man ak Cobra. Ah, yow Cobra combat bi taxaw na fàttali ne woon naa combat. mois de janvier incha allah. mais gaynde met la fanaanoo de. <laughs> ah, ah. <laughs> loolu dara. loolu dara loolu dara di woo sama mbokk séeréer yëpp nag jàpp si waa maintenant gi ma juddoo yaroo fa màggee fa ak sama équipe waa Giri Fass su Mbaw Bass Ndoye su Mbaw ak sumay entraîneurs yëpp suma coach Greg xam ak Père Max yaa ngi

Siraat baax di la siyaar ginnaaw bi ñu déplacé woo presse bi tey yàgg nañ fi trop jóge fu sori ñëw di la fi xaar nga tardeel ñu fi xam naa ne ci loolu moom foog nga jéggalu tey sa open presse Abou Ndiassé defoon na ko fële ca Lamsar tey nga woote fii waa Géejawaay ñëw waa ñaari tali teew waa Grand Dakar teew ñu gis fi sa mbokk mbër yi du ñu lim ginnaaw ban la nuyoo dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu dugg ci question yi siyaar nañ la Pape Ndoye waaw ah, onze billahi maa ngi sant waa baax a baax maa leen di sant di leen gërëm di sant ñaar tali bi yëpp di wax ni combat bi moom gars yi ñu ngi ci waaw di waaj comme niñ daan waaji suñu combat di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam ñu jàpp waaji daan ko ñibbi incha allahu rabbi waaw tey maanaam Lac Rose jéggi siraat Gris 2 Serigne Ndiaye 2 DJ ñëw teew tey yëg-yëg bi ak waa Guédiawaye yëg-yëg bi lan la waaw Pape Ndoye dafa nekk ndaw loo xamante ni xam nga boo nekkee ndaw moom say mag da nga leen di dëggal waaw bu buñ la waxee defal nga def buñ la waxee bàyyil nga bàyyi xëy na dina tax boo amee lépp loo am rek dinañ ci taxaw man dañoo taxaw ci combat ba ma mujjee rus barke alxuraan leen lii jaru ko woon sax ngeen koy ngeen koy def ngir de lagrose gars yi ñoom ñëpp Serigne Ndiaye de waa Fass ñoom DJ Sibel gars yi ñëpp wax dëgg yàlla di préparer combat bi di ko di si ñaan yàlla yàlla may ñu si ndam rek la ñuy ñaan yàlla suñu boroom waaw dara du sedd nag du sedd attaqué koñ ak gagné incha allah. dara du sedd nga am tarkindaa bi tarkindaa bi nga am mbër day soxor moom bañ na ko ba mbër day soxor la dippe boppam abu Ndiassé bi mu fi mujj Fass la mujjoon jàpp sa grand duma ko am victoire ci kawam nan nga fas yéenee ñëwee loolu. waaw léegi raq ñëw na raq day ñëw jëlal grand am revanche incha allah jàpp ko duma ko daan ko waaw. dama koy duma daan ko loolu kay leer na fu mu taxaw ma fekk ko fa attaqué koñe gagné comme ni ma ko doon defee incha allah. Abou Ndiassé Abou Ndiassé maa ko dàq gën a nekk xale fi ma ñemee bëre du fa bëre kon su ma ko jàppee fu ma ko jëmale fa lay jëm loolu mënu ci dara mënu ci dara loolu par force la incha Bokar waaw si ñaar laa ñëw rek mooy que ne euh, tarkindaa yi ku ne xam na ne kuy bëri ak ñoom dañ lay teg pression ba sax sa bëre mën na réer ak tamit sa 17 bi nga def nii tey ñu gis nga rendre si hommage euh, ay ancien yoo xamante ne nii tey waaw 17 bi ñii dañoo nekk ñoo xamante ni ñii symbole lañ kenn mënu leen fàtte ci àdduna parce que ñii rek ay monument lañ waaw ci mel ne suñu papa Boy Bambara suñu papa Double Less suñu papa Mbaye Gueye ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ñëpp waaw ñu leen fàtte ci àdduna ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla oyofal suuf seen kaw coon sekk bàyyiwuñu kenn fàttewuñu kenn barki Seydina Mohamed pression ñun dara mënuñoo teg pression ci àdduna ñun amul dara ñun xoolal oh, Grand Dakar lañ dëkk juddoo Grand Dakar yaroo Grand Dakar waa ñëwaat waa ASECNA man ak ñoom nii waa Mbar ba waa Kafe ñoom ñëpp kon man mënu maa nekk ragal ñaar ñi dar mënuñu maa dar may nekk ragal mënuñu maa nekk ragal te dinañ te jour lamb ja ñuy xamante ne ñoom bu ñu compter may yëngal lamb ji may gasam may daan may ñibbi incha allah. promoteur bi nekk xale comme yéen côté mobilisation lan promoteur mobilisation a soxla ci bi rawatina ay supporters am ci côté mobilisation. bi amul lu ñuy dalal xelam lu dul ba jour làmb ja incha allah rabi di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mu am bés yu mag a a mag comme ay promoteurs yu mag yi ñu tëgg mu dem bay fay ay 100 millions ñu ngi ko koy ñaanal. parce que làmb ji man bàyyiwuma ci kenn maa ngi woo àdduna yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi woo àdduna yëpp di sant ñëpp di wax man man Pape Ndoye personnellement maa sant sama yaay ak sama papa di sant ñi ma dar ñoom Birahim Diop Lagros Giri 2 bàyyiwuma kenn Seydou Kourouma waa ASECNA maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak waa ñaari tali barki Seydina Mohamed bàyyiwuñ ma benn yoon mais maay wax nag di wax ne man xaytam mooy sama maire fii nday sari suñu maman nday sari maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm mais ñun amuñu maire soutenir ñu jàppale wuñ ñu defuñu ñu tous